jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci Gambia euh, li ki ñu fi woo nag xale la boo xamante ni euh, bokk na ci xale yi nga xamante ni mujjee nañoo dugg ci làmb waaye def nañ ci empreinte marqué nañ ci seen empreinte bu am solo muy jamaïcain ñu ngi fii ci bag bi euh, fas yéene jéggi dem fi nga xamante ni mooy Banjul ki mu li mu fi dajale nag. mooy jàkkaarloo bu dox ci diggante Leket Baara ak France mu doonoon affiche boo xamante ni tey buñ ko doon xayma ci Sénégal mën nañu mu ngi mel ni nga jël Modou Lo ak Ama Balde boole leen combat la boo xamante ni combat bu am solo la combat boo xamante ni combat bu neex la. fii ñuy taxaw fii mooy Baara Baara nag fii la ki nga xamante ni Leket dëkk. Leket euh, Banjul gële fa la France dëkk mu doon ñaari xale yoo xamante ni vraiment affiche la bu am solo ci bi mais affiche la boo xamante ni bëgg nañoo waat beneen xar kanam ci wàllub làmb bëgg nañu wane làmb ji nga xamante ni moo am senegal bëgg nañoo jël làmb jooju indi ko fii ci Gàmbi ak jamaïcain lépp dina sotti incha allahu rabbi dañuy dugg ci biir xool jamaïcain nu mu toogee ak suñu kilifa yi nga xamante ni ñu ngi ci biir sëñ Basiru moom bu moom baax na. te itam. lu tax nga respecté yi ba sa bët yi te buy Sénégal doo ko def bëri baa ngi bi kër ga bàyyi de. Euh, jàmm ma lay nuyuwaat bu baax a baax a baax euh, di am kontaan ak mbégte ñëwaat gàmm bi nga indiwaat ñu fi. muy deuxième fois. doon ci daje boo xamante ni dox na ci ñaari xale diggante Leket ak France ginnaaw loolu ñëw bi ak wàccaay bi ñu lay nuyu euh, bàyyi nga nuyu mbokk internet wasaare lamb. jili maa ngi lay fay di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ziar di ziar sa caméraman bi nga ànd ak muy bas di nuyu waa wasaare yëpp di nuyu ñu ñu ànd ak yëpp ci mel ni Lamine di TV ak caméramanam Lamine Chamba. kon tey ñun ñoo yàlla boole ñu dajandoor fii ci féeri bi ñun nag bu ñu ñëwee Gàmbi dafa am na ñu fi indi muy tëgg làmb Gàmbi na comme li may wax rek waaye chaque jour moo xam ne man tëgg làmb rek du sama métti ni ma mënee tëgg làmb noonu laa mënee dawal féeri moo tax féeri bi yàlla day def heure bu ma fi ñëwee dinaa bokk suñu koy dawal. direction baar bi non interview bi moo dagg fee nga ma fekk ma toog ci baar bi waaye bi ma wooyee moo ko xam nga ñoo mu ngi nii maay gérer benn bi mu gérer beneen bi ci des. Hmm. fi mu toll nii actuellement bi ñuy ñëwee ci daje ñaari xale yi nga xamante ni moo dox ci diggante Leket Baara ak France euh, daje boobu tey lan la. waaw daje boobu noonu fi ñu taxaw nii dafa am lu muy firndeel fi sa gannaaw mooy Baara fële fi ñu jëm nii mooy Banjul ndox mi moo dox seen diggante waa Banjul mënuñu génn te ñu jaar Baara waa Baara mënuñu dugg te ñu jaar Banjul mu nekk ñoo xam ne bu doon nawetaan dañ naan derbi la ñoom ñaar seen diggante sept ans combat bi mënul mënul taxaw te derbi googu sax dafa feeñ ba ci signature bi tëggkat boo jël kii ne du ma tëggal kii ne may tëggal kii du tëgg kii du tëgg ba moom mongom moo jógee senegal ñëw du ko tëgg derbi boobu dafa dem ba ci datu signature bi boo jàppee date kii ne date bi du ko def kii ne bi ba lépp mu na wan ne ne combat bi début à la fin lépp derbi la mu nekk loo xam ne du yomb bu ñu demee nag ba yàlla def fii ñu ubbi activité yi ñu ñëw tey war a jëm si le treize suba pour def face à face bi dafa am rek lancement bu ñuy wane combat bi ñu ci jëm le 28 mars. waaye avant loolu dañ dem ci première jàkkaarloo bi ñu war a def fii ci Gambia gannaaw bu ñu ubbee affaire yi te suba bu ngeen fa demee di ngeen xam ne yàgg ngeen dem si jàkkaarloo waaye jàkkaarloo bi ngeen dem tey ak yi ngeen doon dem dafa wute di xam ñaari mbëri seen dayoo mu toll. waaw li ma fi def la kenn la gëj na fee am jël mbëri fi gën a mag yëpp nga booy leen benn journée France leket derbi la booy bal Balla Beldine derbi te ñoom ñaar yëpp kenn ku ci nekk bu ñu la tëggaloon stade mu fees kon ñooñu soo leen boolee ci benn bés bébé xarañ amica rëg-rëg mu ndaw nga xam ne mooy roi xale yi lion noir malien ama ñooñu tey boo leen tëggee ci stade quarante cinq mille francs c'est sûr ne stade bi day fees bañ tëj te loolu lañ si jublu ndax dañ ne ku yokkul yaa wàññi mënuñ fi woon ñëw la 15 décembre am luñ fi def ñëm naan ne stade bi mel suñu ñëwaatee dañu war a ful moo tax bu yoon ñu jël lu mat cinq grands combats ak combats yi ci topp yëpp def ko ci benn bés. jërëjëf dinañ ci ñëw mbokk yi euh, gis ngeen ñu ngi noonu di départ euh, Jamaïcain Lamine Lamine Samba. grand Cheikh siyaar nan. delloo siyaar ji lii ah, sant sant bu baax frère. yow de gis naa la nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dem Gambie euh, jëm ci bis bu rëy bi euh, lan dëgg la ñëw jàppale sama frère jamaïcain nga xam ne booy bu baax la ko yaru la euh, moo waral déplacement bi ñëw Gambie ndax moom moom daf ma jox cër te lu mu dugg rek maa ngi ci waaw sama rakk la sama frère ku baax la yow it sama rakk nga ku baax nga jili sa liggéey rafet na. ñoo ngi koy rafetlu lu bare bari mais kii moom ku ko laal laal ma waaw sama rakk la dafa baax sama rakk la ku ko laal laal ma kii sama jamaïcain la waaw mais di la ziar bu baax nag liggéey bi rafet na lool jëli waaye borom baax tëj këram bàyyi njabootam jógee Dakar ñëw ngir sunu bés kenn amul fayam na ko yàlla fay waaw yàlla defal ko jàmm ñëpp maa moom du tey ñoo la ànd ñëw Gàmbi waaw mais sant yàlla daal li muy sumb ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim mu génn si alhamdulilah rabbil alamin ndax moom yaakaar la ci làmb kii li fi mu fi mu jëlee làmb dafa am fu mu koy yóbbu te dafa am fu mu teg bëtam dañ ko war a jàppale kon ñu déplacé wu ñëw lu bu dee sunu fukki dërëm sax ñu fay ko dañ koy fay ñëw ndax moom ndax ku baax la waaw fu ma ko woo mu ñëw lu ma xewle su ma ko woowoon une heure du day yëkkat téléphone am wuyu ma. moom it su ma wooyee dama koy wuyu ndax sama rakk la maak moom daal liñ si war a wax yëpp xajul ci kii bi mais bëgg naa la frère jàmm ci yow